salaamaaleykum mbokk fi teew maa ngi nuyu bu baax di fi teew di sant di gërëm boo gisee ma ne ngeen teg musique bi pour dina am lu mu fàttali lu bëri depuis démb ba léegi fan yëpp dëkk bi jaxasawul sax ku nekk mu ngi coow réseau yaa ngi wax ku nekk mu ngi wax gis nga Sénégal nañu waxante dëkk Sénégal dëkku jàmm la hmm. dañu war a sant yàlla bu baax sant kii nga xam ne tey moom lañu yàlla jox mooy le président Macky Sall il faut le dire dañu wax nga fait pour le Sénégal tey bu ñu jëloon benn xale xoolal li xew quelque képp li xew fan yii passe assemblée nationale li nga xam ne deuxième institution de la république hmm. tey yéen bu leen ko yëgoon Sall def la ngeen taxu adda yëpp gën seetaan mais tey ku bëgg a investir Sénégal da daw et puis lu gën a garaaw mooy nañu bàyyi xel état kenn ko caaxaane Sénégal yëpp loo gis waxtaan la xoolal tey yàlla def tey la ñëpp xam nañu Seydina Limaamu Laay lu mu def bi Sénégal lu mu def tey la appel bi tey ni war a dalloo ñu yi ni war a bàyyi ba appel bi jàll pour lan tey ñu bëroon dem ñu bëri wu wënde appel dañ la laaj ma leen dama leen dar yoraa rien te Seydina ñëpp xam nañu tey moom ñaar mu ñaar bu doon loolu mais kan nga koppa doole géej koppa doole géej dañoo ko dëgg dem leen beaucoup de pays moon nga xam ne ndox bi dafa ñu renversé yëpp kenn desul mais dañoo war a sant yàlla ñun ñu wër am na leen lu xam ne nit da ngay da ngay dal lu war loolu nag mooy dafa am ñu ñuy infiltré au niveau du Sénégal tey foo dox bi Dakar boo gisul ay étranger du la jaaxal du la jaaxal dañu waxante dëgg man bi may ñëw gis naa façon pakistanais bu nekk bangladesh bu nekk mais ti dikk attention mais qui sont ces gens là qu'est-ce qu'ils font au Sénégal la question hmm. moo tax ma ne leen mbokk yi ngeen dal bu leen info am na information xam ne tant que jógul seen leader bu leen ko déglu ñun ñoo la nekk au sommet ñun amul lu ñu ragal hmm. xam nga tey ñu bëri woo nañ ma démb ni ma président ah xam nga dëkk bi dafa soxla noonu ñuy bàyyi ma ne kuy def lu baax nga dem ba jeex est-ce que xam nga yan laa bëgg ubbi yan laa bëggoon ubbi campagne yu campagne bi yan laa bëggoon ubbi campagne bi ci seen formation lii lii mooy dëgg man joxu leen ma dara yàlla def na j'ai signé benn partenariat avec l'université de Thiès et vous avez des diplômes regardez ces diplômes là c'est des diplômes valables faut ko déposer gars jël comme ko madame Cissé waxee ils sont en train de financer des gens bàyyi waa Thiès nañu wax dëgg Thiès jot ñu financement bi ay wax rek moo fi nekk dañu wax dëgg saa kaw financement yi dafa jaare côté sa je vais attirer l'attention de l'autorité du président public surtout son mentor Amadou Ba le premier ministre les Thiessois ne sont pas du tout formation yaa ngi nii de milliards ngi nii ni ñu ko jox démb dégg ngeen njëpp gi joxe fa plus de 300 millions man moo tax ma ne sama famille man gor laa doomu gor laa man dara mënu ma jënd dara tënkatuma tey la ma lan laa ma faal démb ma dem Cissé man ko s'il y deux personnes j'allais même faire sa la cérémonie dama koy def. parce que lenn ma ma ñor mooy au moins bu si Habib Niang nekkul sax dañu xool ah diplôme bi de ginnaaw yàlla Habib Niang moo tax ma jot ko man noonu laay doxee noonu laay fonctionner en politique. yoruma maa ngi sant yàlla ñi fi toog ñëpp tey amul kenn ku fi jox paas bi ma fa amee man ne est-ce que les gens mu ne président gars yi ñëw nañu fekk tey dama naroon dem si appel bi parce que yàlla dafa def aussi la xalifa général. man ñëpp xam ne taalibe Cheikh la yéen Sénégal yi benn nañu. tijaan murit xaat ñëpp ay benn nañu man sama nam yi moom bëggal sama bopp gis nga li may def nii la xal général mu koy suivre moom damay toog mu woo doom bi mu woo rakkam bu jigéen. mu ni ko ma jokaay mu ne ma Habib Niang démb demoon na fi Mbodiène demoon na fi Boñeen moom moo koy wax lu ma def rek bu ma génn ma wax ko yàlla def ma bëggal ma biir xolam tey pourtant wax na nee na ma même man saa yi ma ñëwee kër damay dugg rusaanu bu ma ñëwee du ma toog ci kaw suuf de ci kaw laay waxtaan ak moom parce que intellectuel la macha allah informaticien la ku xam dëkk bi luy riir man ma buggal bokk au moins li xew démb nii rus au moins. si maam nga xam ne liggéey na lislaam wala yi liggéey lislaam si Amadou li liggéey lislaam Alaaji Malick si nga si ñooñu kenn mënu leen jaxase loolu benn parenthèse bu doon bu ubbi di leen wax rek def na lu mu warul lu am hmm. ñun on s'attendait pas au report des élections préparé nañu gis ngeen euh, kii maanaam euh, rapport bi kii moo waroon kii moo naroon doon ñu kii de campagne ñu on était prêts demande même l'association des terres qui est là on était prêts pour lan pour suñuy éléments yi nekk si le terrain la preuve commence toutes les kii électorales comme électorales yëpp commence ñu monter on a pris toutes les jeunes dispositions moo tax j'ai dit à tous les bureaux de vote soxla ma mag ay xale rek laa soxla mhm. effectivement ce contexte là mënu si yoon def élection c'est pas possible parti bu xam ne biir parti bi sax yaa dafa ma jafa jaxasoo nañu wax dëgg dafa jaxasoo président bi taxaw nee na jël naa nit wóolu naa ko doylu naa ko sa xam-xam doon naa ko si teey mooy Amadou Ba dañu wax dëgg ci seeg la président public Amadou dañu waxtaan ñu ñaar c'est pas une question je suis son conseil spécial wala dara man je dis la vérité ce que je pense parce que même dara je suis un de l'État peut-être sama bonus ma nekk ma dans ce cabinet di ko conseil dégg ko président PM marché Amine sax laay wax président laay wax dafa li dafa laa nii nga def son combat principal c'est la jeunesse. ñun hmm. aussi boo koy dimbali si wàllu liggéey. il faut que nécessairement mu am formation mu jàng. Hmm. mu am dara tey demee dans les chantiers jom ñaajo foo dem looy gis tu que des étrangers c' des Guinéens qui sont là des étrangers qui sont là qui n'ont pas de papier. ñoom ñooy liggéey liggéey bi. pourtant les gens sont bien payés là ils ont journée hmm. francs par jour. le mois c' combien dañoo wax ne dëgg. tu presque 3 francs par mois kooku salaire fonctionnaire c' est le même cadre de l' administration. pour vous dire la vérité. Hmm. Sénégal liggéey mu ngi fi. la première chose que le président a dit may def mooy bu élection am et puis ñun on était serein ñun amoon nañu espoir si si jigéen ñi et li may wax mooy euh, li may wax mooy gis nga Amadou c'est une coalition moo ko fal moo ànd ak moom c'est pas APR c'est une coalition di benn bokk yaakaar mais ñu on a un mouvement indépendant on a mouvement national mm. la preuve moom démb bi may dem bakki dem émission LRTV

ba ñoom si lu ñu ma wax mooy ni ne ma lii de c'est rare un leader politique nii invité ko tey ay mbooloo topp si ginnaaw xamu leen sax parce que man ragalu dara tey bu amoon ñaari nit damay taxaw wax li ma xalaat ñëpp xam nañu je renouvelle ma loyauté ma fidélité au président Macky Sall derrière son premier ministre si affaire Amadou Ba yëpp ay ay fen yi ñu monté mais ñun ñaata la ñu monté si président Macky Sall ñun ñi pourtant bu président ñëwee fii ñoo ko ñëkk a dalal Thiès ñun lu ñu duggul lu ñu duggul du sotti xamante nañ bu baax a baax tey dëkk baa ngi nii ne teg salaw kan ma fi woote nañu wax di dëgg bu ko journaliste di la vérité kan ma fi woote ñun ñoo am droit tey moo tax man bu doon sama sag tey rek pour respect de l'administration et puis aussi il faut le il faut vraiment qu'on remercie la sécurité vraiment force de l'ordre bi dañ leen waroon sant ñaanal leen yàlla parce que tey nelawuñu dibb nelawuñu fan yëpp nelawuñu ñu ngi lim yëpp pour aar askan bi ils sont payés pour ça ñoom tey seen sale seen seen maanaam seen salaire seen sol dagan na lew na wécc dañ leen war a yokkalaat doole parce que tey gis ngeen dañ toll si stade boo xam ne tey c'est vrai booy bëri bu ñu liggéey ñoom li occasion yi wër def la neex mais kii woote tey man ci pensé ko marché bu amoon ni may njëkk a def mooy j'avais sama njaboot laa njëkk jiital sama ay soxna laa njëkk woo ñoo la tax sama wat mais jël ay doomu jaamu dem leen tiire attaque et puis je suis vraiment désolé aussi il faut le vraiment désolé ce qui s'est passé avant-hier man je suis désolé vraiment je suis perturbé un responsable xam ne un de la presse taxaw dañu ne dimanche ma dem déloger Macky Sall ay ah, écoutez ma sama Sénégal lañ nekk waaye dafa am biiru xam sax nit gis nga dañuy wax parfois ñi jàng prix presse est-ce que excusez je désolé est-ce que vraiment déologie jàng nañu regardez les gens d'hier hmm. les ñoom ngeen baam soxna soxna soxna Dieng ak ñeneen ñeneen ada ñu Fofana yeneen yeneen voilà c'est vrai des vrais journalistes des gens yoo xam ne tey il défend il donne des bonnes informations taxaw eh génn leen loolu di xaar xoolal loolu dañu wax di dëgg waay moo tax man ne leen na ngeen dal yar leen seen doom yi wax leen ak seen doom yi xale yi dofatuñu de xale yi dofatuñu am na benn waaye bu ko wax mu ne man mburu bii may jaay boulanger bi may liggéey moom laay dundale moom laay noosee mu ne affaire ping gis nga ce qui se passe yi le soir bëri tey non booy ma démb booy dama bay mais xool am na xam ne dañuy daw dañu waxante dëgg bu leen bu xale bu ñu lor seen bopp hmm. lancement bi may lancé mooy à l'endroit des jeunes nañu dal pay ñun ñëpp on est on est contre pour le report des élections mais y a y a un contexte dafa am lu ko indi moo tax ah dem nañu ba bu ñu ne bon y a des yoo xam ne Sénégal ñëpp xam ne consul la kenn amul droit nekk ñaari ñaar war am droit nekk am ñaari nationalité nekk candidat mais ni dem ba découvrir tey bu ñu doon toppatee yaakaar naa ne dinaan ñeent rek ñoo doon candidat fii ni ñu xam ne xamuñu leen sax seen dërëje moo leen may ba ay passeport ay euh, nationalité américaine nationalité lu nekk man mi di la wax nii dem naa fi un pays bu xam ne extrêmement riche président bi recevoir na ma il m'a même demandé ne est-ce que bëgg ma a sama nationalité parce que j'ai besoin de si wàllu infrastructure man ko jamais de la vie pourtant dëkk bi nga xam ne tey boo xoolee ñu jox leen mooy dëkk bi ngeen dégg Somaliland hmm. kenn ko 16 heures xoolal ñaata de la moo gën a sori màkk cuuraay bi ngeen di gis ni ay kilo jar un un un million par weer un million benn ci bu la kilo foofu lay jóge ci seen montagne yi bëri wu ñu de deux millions d'habitants nañ kër boo dugg am na ay get ay xar am na jamaa macha allah yaatu le président recevoir na ma. daf may dégg. Hmm. il m'a invité je parti là-bas bi may dem sax man yàlla dafa defoon man j'ai même interpellé le président public mu ne ma foofu foofu foofu la a fait ba foofu président m'a reçu ci dans son palais on a pang longuement discuté partenariat laa bëggoon et puis man fu ma dem rek damay so damay xeex ngir lan si sama njaboot yéen ñaa ngi sama njaboot élection yi nag. peut-être dafa am ay causes yu tax ñu reporter les élections parce que conditions yi tey bu Amadou Ba demoon xam nga les gens n'ont rien compris gis nga Amadou Ba du appel moo koy fal dañuy wax dëgg c'est les mouvements ñoo koy fal. c'est une coalition ay moo koy fal les autres partis politiques ñun ñëpp joxe nañu seen instruction ferme ko ils vont voter pour Amadou Ba. ak ñeneen ñeneen ñun on reçoit tellement de mouvements qui viennent nous voir au Petit Palais ba 5 du matin tey bu perte Amadou Ba huit heures ñëpp xam nañu seen nom c'est un homme d'état. Hmm. huit heures xoolal man na la huit heures mu ngi biiram. man ko président man nga noppalee ko dal mu ne comment faire et les institutions du président. gis nga pour vous dire que y a rien entre le président Amadou Ba et Macky Sall maa la ko tey. toog naa moom nii barke démb mu waxtaan ba si kanam ma koy conseil li ko wax nii lii ngay def et puis li mu ko njëkk a wax mooy c'est sorti bu mu doon mbàkki bu xam na la def na doon c'est les marchands gis nga le secteur informel est important loolu laa ko doon ma ko dañuy wàcc sur le terrain comme bi ngay génn sa kër ñu nu ngay dem non on va le faire moo moo de pour dire que la population tam bëgg nañ la population ñëpp na mënu ñëpp mënu la bëgg ma ne Habib Niang intéressé mooy askan bi moom ñor hmm. yoruma ay certain bon du ko far bëggum nga di wax sax baax ni ko no boobi des cent ay yeneen euh, stratégie yi xam ne mun naa si dimbali sa bopp man viket bu ne di waxtaan ñoom di leen conseil di lu bëri et aussi di masawu tamit vraiment euh, étudiant bi xam ne tamit euh, ndeysaan gaañu na Saint-Louis man bu mu amee j'ai appelé le coordonnateur qui est là-bas on m'a informé jox nañu information mais du mu teel a parce que la justice dugg na suñu sa enquête moo tax bu mu sore mais am naa quelques information xam ne lan moo indi loolu mais loolu c'est pas ça de et puis lu am ni ne le président par président Macky bopp non loolu suñu bopp rek xamante nañu bu baax a baax et puis les gens nekk fi di manipuler di wax lu nekk si Amadou Ba bu ñu xëyee guddi ko demande audience pour gis ko y en a beaucoup il vient à deux heures matin moo tax ñun on a besoin un président serein un président calme nga xam ne tey bu toogee Sénégal si jàmm ngeen Sénégal dal moo koy jéem da ko bëgg bi waxee rek dal la du n'importe qui moo mu yore réew Sénégal tey Amadou Ba tey bu mu nekkoon tey poste bi mu nekk bu doon keneen nañu waxante dëgg du mu seen tur kon dem nañ bu yàgg démissionné daw na bu yàgg démissionné na ba jël na njabootam sax ba leen mais Amadou dafa dal dafa teey loo ko wax mu ne man ndigal laa xaar bu jóge lan si jóge si le président Macky Sall le président ne s'est pas son trompé bu tegoon keneen daf koy kuwu ni ngi wax ak gars yi Amadou nag yàlla ma ko nattoo loolu sa force mooy lan sa détermination mooy lan mooy lan dafa gëm yàlla ku jullite la ku xam li ku xam li ku xam doomu aadama xam nga lu gën a am solo si doomu aadama mooy ñun ñëw nee na ma faal ñëw nee na président Habib Niang wax na la laa nga ne ko déedéet nga ne ko on avance ce qui l'intéresse mooy c' est l' avancement du pays nan lay defee pour xale liggéey nan lay defee pour régler le problème des des syndicats et puis aussi ñëpp xam nañu syndicat yi dafa dafa dafa yarax ñëpp dugg même la presse excusez-moi ce terme dafa dafa yarax léegi y a des comptes xam xam ñu mu demee ah, donc dañu dal dañu dal tey xam ce qui bi may terminer foofu aussi di remercier aussi j'ai reçu l'amicale des étudiants de Ziguinchor ils m'ont expliqué que macha allah kii nga xam ne tay moom mooy seen président national c'est un jeune de la zone nord ñu ngi koy fils de passage ils ont fait les élections si je me ils ont fait les élections avant kooku si ñun la bokk moom mooy président de l'association des syndicats des de Ziguinchor fii la dëkk zone nord fii ñu ngi koy fils de passage di ko ñaanu jàmm li mu leen di wax rek vous yéen ñi sama pour un moment bien déterminé pour xoolaat njaboot bi aussi nañu toog dal nit yi bu leen influencé président Habib Niang wax na la Habib bu waxee am na ñu muy waxal waxee am na ñoo xam ne ne wóolu naa leen tey bu ma tëddoon tey sama bàmmeel ñooñu duñu wax duñu lu ma wax loolu nañu wax sëñ Boubacar Ndiéguène macha allah mu ngi ne kilifa la sëñ dig sëñ ngi nii tamit sëñ góor ak ñaata ni nga ànd tey ñii bu mu leen wax ma ne leen tey waxal femme yi nii nii nii ils vont la faire et puis ñi tey comme vous savez man ngeen xam man ñaata nañ ma lor fii lu nekk wax nañ ma ko sonn naa si di daw guddi bëccëg mais man yàlla ma ñor fi may daanale aussi di remercier ñëpp parce que temps amul tey ñëpp xam nañ tey appel bi tey la man mi di la wax nii sax damay dem nii rencontre gisante sa waay sama xarit la la xalif sama waaye la sama xarit la ça je le dis haut et fort la presse ku mu bëgg la ku mu fonk la et puis ku may suivre la. Hmm. ko gën a marqué mooy lii ma defoon poñal bu bu bu bu kii bi daggee tranché bi daggee mais on est des ingénieurs des techniciens xam nañ comment faire pour régler cette situation. loolu nag moo tax tey ma ne par A ou il faut ma ñëw tey indi ñoo jox leen seen lijaasa si yàlla def na nag forme nañu presque lu mën ñaata téeméer. 140 140. cent 148 macha allah groupement formé nañ leen mais la sant yàlla la tey ñii koo si financé tey mu liggéeyee Sénégal jëm na kanam avancé la xam nga i c'est dans la vie il faut être indépendant il faut pas dépenser Habib Niang Habib Niang nekk fii man sa amul ma bu président ma dépensé non non non écoutez ma il faut que ku nekk am loo yore sa loxo ku ne xam loo doole et bu ñu paree si fii bu ñu paree fii aussi bu ñu paree si wàllu famille on va le faire avec la jeunesse am na yeneen formation man sama bopp aussi comme ni nga ko waxee wax naa ko léegi léegi maanaam la maa ngi remercier bu baax euh, directeur di la sant bu baax. di remercier aussi tamit vraiment la formatrice di ko sant bu baax di ko dool yàlla yàlla gën a dooleel. di remercier tout mon staff qui est là présent et les femmes fii ak ñaari weer dama bu organiser benn benn foire. fekk yëpp dal na booy calme nañ bu baax parce que mun nga organiser dara booy ñëw yàqal nangam nangam nii man ma lu ma organiser moom kenn fa taxaw moom loolu laa wax. xam nañu xamante nañu dama leen di lu leer dinañ ko def fii wut ay financement pour sama ay partenaires. fii ak sawee la may naa leen délai fii ak maximum xoolal deux mois incha allah rabbi je le ferai ni def ko fii place de France wala ngeen xool fan ngeen ko bëgg defee fii ni def ko entrée payant man ut ay partenaire lii nga xam ne maanaam moom moo indi ñëw si si entrée bi bu doon seen financement ngeen démarré parce que man je m'attends rien de l'état déposé naa fi ñaatoon ñaatoon financement ñu jox ñu gauche ñu dawloo gauche à droite tey ñi ñuy dawloo gauche à droite ñooy xëy di critique Amadou Ba bu doon Amadou Ba duñ nekk dara tey il faut le dire en tout ñun moom am na ñu yàlla jox am xamante nañu li ma leen wax rek mooy njaboot bi na ngeen dal bu leen kenn yóbbaale. Mhm. gis nga ñu di jaay gorom xaalis wul tax nga jaay sa gor góorgóorlu leen liggéey leen am ngeen seen ay diplôme tee leen man sam bopp sax temps en temps sax naa am na sax maa ko def xam ne bu yëgu ko rentemps rek ma raxas dugg si benn groupement ñoo fekk la nga ne ma ne tey jëlal ma tant de eau de javel savon boo paree jaay nga joxoon ko benn école commencé naa ko def xaw ma essayé nga wala yëgu leen ko commencé naa di ko def nag je le dans la plus grande discrétion ba yàlla may ñu nag bu ñu demee bu ñu def élection dina leer et puis ren on était déterminé ren ce que j'ai dit aux jeunes aux femmes si Amadou Ba nag gañ pare ren man pare naa Thiès damay damay génn Thiès il m'a dit monsieur le président et puis sama xel daloon na parce que boo xoolee pratiquement tous les comités nos nos nos éléments sont à l'intérieur 24 heures sur 24 ñu mën a jox toutes les informations nécessaires pour dire vraiment c'est des jeunes qui sont déterminés son ñu war a wootee moom moo nekkoon suñu son de campagne pour dem ànd ak suñu ñotu candidat bu doon dugg si Thiès nag dina xam ne danañ ko teeru mu ku ñu même Macky ko massage bu la di yow fort di sant ñëpp di gërëm di ñaan jàmm donc euh, loolu amul may wax di sant di gërëm di ñaan jàmm et pour di ko si dañoo xaar ba formation yi jeex rek ni xool yan moyens nañu am rek pour ay financement pour ngeen mun a seen activités man sama bopp nag temps en temps rek ma raxas si benn groupe seeti leen rek ma ne ah am def leen ay eau de Javel ngeen jël tas ki si benn école nga xam ne kenn koy bëgguma koon wax sax il fallait ma dire ah jërëjëf waaw bon merci